Let us go by uh, with the Gulf story. The Gambia Armed Forces has said that comments made against its commander by retired General Lamin Bojang, who is the presidential candidate of the Gambia Action Party, have the potential to incite hatred and division within the military. Retired General Lamin Bojang recently alleged, among other issues, that most of the soldiers in the Gambia armed forces are demoralized, that the reinstatement of ex-convicts was a reflection of the leadership deficit in the Gambia armed forces and that the former CDS Kinte favored Mandinkas. Reacting to criticism in a statement shared with the Standard, GAF, GAF counted. The Gambia Armed Forces wishes to state that the remarks made by the GAF leader, retired General Blamin Bojang, are rather unfortunate and have the potential to incite hatred and division within the Gambia Armed Forces as well as the nation at large and could have far-reaching implications on national security it might be in instructive to state that Section 12 of the Gambia Armed Forces Act has vested the powers to dismiss, retire, and reinstate officers in the hands of the President and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, and this can only be exercised at his President's discretion or directive. Detail of that on the standard newspaper. gaf bii moom gis naa ne it's not a new story uh, General Lamin Bojang moo nekk leader of gaf moom dafa make on some allegations that regarding the retirement uh, reinstatement of officers Gambia Armed Forces yi foofu noonu waaye moom mu ngi wax daal foofu noonu daanaka lu mel daal am na lu ñuul si soome waaye gis nañ ne fi gaf tamit ñoom jóg na ñu ngi wax ne ñoom uh, section 12 of the Gambia Armed Forces Act daf leen jox the uh, president the power to either reinstate uh, dismiss or pour mu xaaya koo xam ne dafa waaye moom mu ne mu ngi wax ne lii comme waxi général bi Lamin Bojang have the potential pour mu incite hatred moo nekk um, bañante waaw si si military bi foofu noonu um, foog naa mu waxee wax ba ñoom armée boppa ñu ngi soog a tontu mhm. ci wax mi am na kenn ku bokk ci ñoom ku génnoon na wax tontu ko moom waaye bi it is officially from the army because PRO bi yaa ngi ko gis noonu dafa mel ni dañ génnee bataaxal pour euh, indi leeral ci kaddu yi nga xamante ne mooy euh, former général bi euh, wax na ko te moom bokkoon na ci army bi te wax bi boo ko dégloo mu ngi xam na lu bëri ak yu mel noonu waaye foog naa ne comme ñoom ni ñu ko waxee wax bi is on fortunate te dañ jàpp ne am na nu moo waxee dina indi li nga xamante ne mooy hatred mooy mm-hmm. bañante ak noonoo ci biir ami bi euh, te loolu dafa am lu moo jur euh, dafa dafa nekk lu doy waar ak ñu xam ne ñi si que ami bi moom euh, dañu war a nekk dañ benn <laughs> war a bennoo bokk benn jubluwaay ak gis-gis bu bu ñu wuutee rek leneen dana ci am euh, te xëy na moo tax ñu ñoom tamit ñu am seen taxawaay génnee leeral bu mel ni pour tamit ñu meek sure ne ñi nga xamante ñu ngi seen doon ñu xam ne xëy na wax yu ki wax ñoom ànduñ ci ak yooyu waaw buñ noppee rek dafa mel ni moom li mu wax moo am Euh, foog ñoom tamit ñu génn ñu leeral euh, te foog naa ne bu mu waxee tamit Gambien si bari react nañ am na lu leneen ñu wax leneen ak yooyu so obviously euh, nañ xam ne daal yëf yi réew mi ñu ñoo ko bokk yéen nay moom xejut fi waaw te tamit moom général Bojang dafa am yéene pour jiite réew mi te position boobu bu nekk nag position bu critique bu am na nu moo waxee te jotagut ci réew mi bu ci jotee est-ce que kon doxalin armée bi du ci indi du ci indi leneen lu ees ndax du ndax du change système fi amoon xam nga ak yu mel noonu. am na sax you know so affaire daal mu ngi noonu. Ah, waaw comme ni ko waxee rek of ex convicts. Ah, si army bi loo xam ne dafa serious torop. Mm. lay mu nekk ex convict. ex convict moo nekk ne dañ la convict. waaw luwa dafa daanu sa kaw ba pare sa kaw afta nga delluwaat si army bi te wax na tamit ah, kuy daf la dafa so tribalism daal. te moom he is a party leader nara uh, inside this um, tribalism in the minds of the people yow sa jàngat si loolu Amadou wax na ko si kàddu am moom he is a government in because moom tami bugga na sentu na si place boobu noonu ah, waaye nara bring this kind of statements in the army moom moom candidate la ba pare moom rek lañ xam mu nekk ni sax kan moom moom mooy candidate bi nga xam ne taxaw na pour pour gaab mm. loolu uh, ban daal xam naa ne lu doy waar la parce que kilifa la woon si armée bi parce que ku dem ba nekk général su fekkee ne su duñu waxee nii. waaw loolu kilifa la woon so euh, mu mu ngi fa woon xam na lu nekk si armée bi yëpp te xam na ñu ko jiite dama fa ne su nekkee ne am na lu nga xam ne mu ngi fa nekk di dox loo xam ne du yoon sax moom am na nu mu ko war a waxee yeneen wees comme ni waaye comme noo ko waxee dafa nekk dafa soxla jiite réew mi euh, di génne problème yi soo dafaa doy kooku bu nit ñi dinañ am tuumaay si moom. man lu ma ko daan xelal léegi comme que bàyyi na ami bi te dugg na si mbiri politique bi léegi mu foloo si yëfi politique bi rek am na right ba léegi wax si de parce que loolu ku ñun ñi kenn ku si nekk am nga right wax si waaye foofu dafa nekk fu nga xam ne place bu doy waar la euh, te yu fa gën a garaaw mooy tribalisme bu fa war a dugal ah, parce que ñooñu ñooñ ñooñu war a xaar réew mi ñooñu leen war a bokk benn gis-gis bokk benn yëpp waruñu am benn te loolu l yare am loolu leen ko yare wax naa ne ñoom ni ñu dee benn la loo loo waaye xam nga xol tam nit ki moo ko moom. soo mun ngaa foloo loo si yëpp waaye fekk sa xol am na leneen lu si nekk te façon yi mun na dugal ay ñox ñoxal ay xoli ah, ñeneen si biir armée bi te loolu wax dëgg yàlla fu mu nekk ni bëggatuñ ko armée bi li ñu bëgg ñoom ñëpp ñu am white paper bu leen bëgg mu nekk fa parce que nag liñ daj si armée réew mi liñ daj yëfi militaire métti métti dafa doy kenn waratul ñëw di jaxase si seen biir di fa dugal lu nga xam ne dina jax-jaxal seen xol ba ñoomu neen ñi am problème loolu xaaruñ ko si moom li ñuy xaar si moom mu ngi si dugg na si làmba ji mooy politique bi so na ñëw nag si politique bi mm-hmm. te nag ñu ngi ko xaar am nga wax nañ ko fi last time am na fu ñu koy xaar mooy askan bi léegi dafa am lu ñu soxla lu du di jax-jaxal ay xoli ameeg yooyu donte su ko wayee mu fa nekkut fa waaye am na lu ñu askan bi dee xaar ci moom right now parce que askan bi la soxla léegi da am corona baa ngi nii ñu ngi xaar ay ndimbal yu bëri yu jëm si askan bi te mu ngi war a mit askan boobu na génne million yu mu amee mu ko mu jënd ko ay dund yóbbul ko nit ñi loolu si loolu lañ koy xaar